affaire éducation bu nga wax mais c'est vrai lu ñuy jàng ma ne dañ koy gis suñu temps ñun et est-ce que ça a beaucoup changé qu'est-ce qu'on nous apprenait nos ancêtres c'était des des Gaulois. des Gaulois ils habitaient dans des je sais par cœur dans des grottes et étaient vêtus de peau de bête. ba ma nga yeewu nga ne mais ñii dañuy fontoo ah naka la ñu mën a amee ay ancêtres yu mel noonu alors si bien que mais on se rend compte effectivement nu ko doyen waxee. mais c'est la réalité allez à l'université Cheikh Anta Diop qui porte ce nom de ce de ce de ce de ce, de ce chercheur hein, qui a qui vraiment c'est c'est c'est je sais pas moi dans, dans l'histoire hein, il n'a rien à envier à qui que ce soit mm-hmm. hein, mais combien d'étudiants connaissent l'œuvre de Cheikh Anta Diop et la philosophie de Cheikh euh, Anta Diop on peut les compter ah, alors vous voyez il y a ça et puis Parce on, on, on ne, pas voilà notre éducation mm-hmm. accès wuñ ko si suñu bopp si defe naa ni bala ngay mën gëm dara da ngay jëkk a gëm sa bopp. c'est ça le da ngay jëkk a respecter sa bopp. Mm-hmm. da ngay jëkk a xam sa bopp ba ba pare je le dis aussi da ngay enraciner si sa culture ah, ba nga xam ne bu fekkee ne yaa ngi dem feneen. Mm-hmm. mais kenn du la mën a dara ah oui. parce que tu es aussi le problème identitaire on a une identité. Ah. dañu am suñu identité dañu war a respecter suñu identité boo ko defalee da ngay réer ay voilà boo waxoon na ko Kizerbo nee na nit bu amulee identité ku la neex mën nga ko jël def ko loo ko bëgg a def c'est ça et ça ce sont les chercheurs africains mm-hmm. c'est ça le problème en fait on nous demal suñu bopp et jusqu'à présent même si on le dit comme ça que dañu gëm suñu bopp dañu c'est ancré en nous c'est ancré en nous waaw euh, ñun on nous a décolonisé comme ça rek mais ci suñu histoire ci suñu culture ñun on est toujours dans le